waaleykum salaam wa rahmatulah barakaatu Serigne Fall na ngeen def mbaa yéen ci jàmm baax waaw man la Fap si yéen ñuy laaj ne da ngeen a bëgg dugal ci li ñuy laajal imam te mën leen dugg si Kopar Express ñu mënti dugg foofu te bëgg soxla numéro orange ma ne wala weef nañ jël 77 947 74 80 77 947 74 80 Moustapha Ndaw moo moom numéro bi Moustapha Ndaw.